Vendredi 17 septembre 2021, le ministère de la Santé et de sociale a les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1912 tests réalisés, 26 sont revenus positifs, soit un de positivité de 1,35%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 3 cas suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 23 cas de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme La région de Dakar totalise 12 cas communautaires, tandis que les autres régions du pays en totalisent 1. Toujours dans le bilan du jour Il est à noter que 390 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 10 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré le jeudi 16 septembre 2021. L'état de santé des autres patients suivis hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 73 588 cas ont été déclarés positifs, dont 68 811 guéris, 1842 décédés et donc 2934 patients encore sous Le ministère la Santé l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de campagne de vaccination contre la COVID-19, 1 210 891 personnes ont été vaccinées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 amuñ ci benn kaa bu jóge bitim réew ma wa maanaam importé waaye am nañ ci ñaar fukk ak ñett ñi nga xam ne ñoom ñooy communautaire communautaire yooyu seen lim ni la tëddee ci région de Dakar ak li ko wër am nañ ci fukk ak ñaar ci yeneen région yi am nañ ci fukk ak benn cas toujours ci bilan bi ñu leen di xamal tamit que ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukki si ay malade yu entré woon hôpital wala ñu doon topp ci biir kër yi wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee fukki malade ñoo nekk réanimation benn malade a génn àdduna bësu démb alxames fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre miñ nekk ñeneen ñi des hôpital ak malade yi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na juróom-ñaar fukki junni ak ñett yu teg juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom fukki junni ak juróom-ñett yu teg juróom-ñett téeméer ak fukk ak benn wér nañ ci junni ak juróom-ñett téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ñoo ñàkk seen bakkan mu des ci loxo docteur yi ak malade yi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñaari junni ak juróom-ñeent téeméer ak fanweer ak ñeent ministre santé de l'action sociale mu ngi leen di xamal tamit bi campagne vaccination bi dooree ba léegi ñu jot a ñu ngi toll ci benn million ak ñaari téeméeri junne ak fukk yu teg juróom-ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn.